yéen mbokk yi ñu ngi am mbégte ak bànneex di leen jaajëfal bu baax a baax si jàkkaarloo bi ngeen jàkkaarloo ak ñun na si www.allo-dakar.sn tey ñëwoon fii seet si Imam Cissé mi nga xam ne ni mi ngi dëkk si parcelle unité 18 euh, fii nga xam ne ni mooy pharmacie la parcelle parcelloise tey du ñu def rek lu dul ànd ak euh, Imam Cissé laaj ko tey moom euh, lan lay wan waa Sénégal lan lay waxtaan ak waa Sénégal si nga xam ne ni moom lay yëngatu Imam Cissé ñu ngi lay nuyu. bisimillahi rahmaani rahim asalaatu wasalaam ala ashrafil mursalin wala alihi wa sahbi eh, maa ngi nuyu ñëpp di nuyu samay mbokk jullit yi ak samay mbokk yi am na jàmm yëpp di leen sant di leen gërëm balaa ma waxtaan ak yéen eh, waxtaan waxa nuyoo ci wàllu soose ba pare parce que soose la asalaamaaleykum mbaadi mbandinkool mbaal be kontonal baadi ma si semi mbe jam parcelle à seen unité 18 abal kontonna abal jeyla abi duwa kilali wato wati memen solatale isa kumandi isa soto asa duwa ke inchallah rabbi na ke to ñaama mbe kaccale ale wala fo kan mu musura kawanti inchallah rabbi euh, mbokk jullit yi maa ngi di leen sant man la Serigne Cissé di defal euh, ay ñaan ci jullit yi ñëpp ñëpp ñu may soxla maa ngi fi Parcelles seen unité 18 bëri na am na ñu may soxla ci fànn ñaan yi jëm ci seen wàllu soxla euh, ak yeneen i mbir yoo xamante ne ci wàllu baatin nay jëm ci wàllu alxuraan lay ñaan ak ci wàllu sunguf incha allah rabbi waaw imam Cissé euh, tey ñu sese woon la rek euh, waa Allo Dakar euh, nga bëgg ñoo leeral tuuti si nga xam ne si moom ngay yëngatu ak la yàlla baaxee. Ah, ci lu may yëngatu moom ci wàllu ñaan ci laay yëngatu yàlla baaxee na ma ay xam-xam bi ci wàllu laa ko jëlee mooy ci wàllu xaatim xaatim bi moom fu ma ko jëlee samay maam ak samay papa. mooy ñun soose ci wàllu arxul la ñuy liggéeyee ci lépp baatin bu nekk ci accord dañ koy génne incha allah liggéeyal ko doomi aadama ngir jaamu yàlla ci bépp fànn mooy fànn bi nga xamante ne mooy jëm ci wàllu wërugu yaram mooy jëm ci wàllu yaram ñu am na ñoo xam ne dañu may soxla seen wàllu yaram euh, bu fekkent yaram bi dafa am ay liggéey wala yaram bi tëju ci wàllu ubbeeku daal kooku dinaa ci dafay ñaan yu am am solo incha allah te yàlla suñu borom tabaaraka taala moo baaxee ci ay secret yu nekk ci wàllu alxuraan ci laa koy jël incha allah. waaw Imam Cissé euh, mun nga ñu wax rek parce que ñu ngi gis fi nga xam ne ni euh, yaa ngi pàcc euh, ci wàllu voyage si wàllu santé wér gu yaram ak wàllu faiblesse sexuelle faiblesse sexuelle mun nga ci wax. waaw faiblesse sexuelle kooku naa ci dafay ñaan incha allah kooku nu ma ci dafay ñaan ci wàllu sunguf ci laay defee ñaan wàllu alxuraan nu ma ci boole alxuraan ak sunguf lay boole def ci ay ñaan yi nga xamante ne seen néew kattan. seen i doole daa wàññeeku bëri na ñi nga xam ne dañu yor ay feebar am na eh, néew kattan yoo xamante ne wàllu rab dina koy def am yoo xam ne ci wàllu produit ñuy lekk jamono yi moo def lu bëri bëri am yoo xamante ne rab bu leen jàppee dañuy fooy seen bopp kooku am na yi mbir yoo xamante ne suñu borom baaxee naw ci mais damay listixaar ba pare boo ñëwee ci man wala nga woo ma euh, si samay numéro rek euh, bu ko defee boo ñëwee dama lay listixaar ba pare jël sa tur ak sa tur yaay boo ko defee ma list xaar ko bu fekkee ne walu rab la dinaa la wax ne lii ak lii la euh, def ci ay ñaan bu fekkente ne aussi euh, beneen fànn la boo xamante ne ci wallu lekk la wala yeneen euh, ñoo lay def ay télé kooku dinaa ci def ay mbir yoo xam ne ci walu suma alxuraan lay boole pour nga am wër incha allah rabbi. waaw sëñ Imaam gis nañu ci wàllu rab jigéen ñi dafa faral souvent di ko am léegi mën nga ñuy wax tuuti lan moo tax waa rab bëri na jamono gi ñi nga xam ne daf leen di sonal te rab dafa yàqal euh, doomi aadama lu bëree bëree du yemul ci jigéen kese day dem ba ci góor tamit euh, góor rab dina koy sonal euh, jigéen tamit rab dina koy sonal boo am jëkkër sam day jafe ci moom bëri na ñi nga xamante ne day ñëw si man dañu am bu ay quarante ans quarante cinq ans kenn du leen kenn du leen wax salaamaaleykum ci ci wàllu sëy Euh, kooku rab dina koy def mais bu ma ko xoolee pare fekk ne rab la daal incha allah dinaa ci defay ñaan daal boo suñ borom may ko jàmm incha allah te itamit jamono gi euh, rab dafa bari trop euh, muy wàllu jinne yi nga xam ne wàllu seytaane la ci wàllu colin def ci def ci jaaree ak itamit say baat jigéen baatam dafa war a suufee yooyu yëpp rab dina jaare ci doomi aadama ci fànn bu bëree bëri yoo xam ne mun na taseeg ak yow euh, jaar ci ngelaw wala ci leneen ba mu dugg la kooku mun na la defal yàq-yàq mais yooyu yëpp daal incha allah bi kooku bu ma ko jotee daal ci kattanu suñu borom tabaraka taala ci lay sukkandiku ci yàlla euh, parce que ñaan ci alxuraan laa ko jëlee moo tax du ma bàkku ci lenn mais nag li ma suñu borom may wóolu naa ko ak li ma jàng samay samay kilifa wóolu naa ko trop incha allah boo bu ma ci defee rek lépp dama koy bàyyi suñu borom tabaaraka taala mu yeggali mbir mi allah. wan suñu mansé dafa am lu ma jaaxal ndax fu mu nekk nii góor yi naka def ba rab dugg leen man looloo ma jaaxal. waaw même góor euh, jamono gi parce que jamono gi euh, rab dafa bëri mooy seytaane rab seytaane la mooy seytaane bon. Euh, moo waral euh, doomi aadama yi sutura léegi amatul léegi tamit léeg-léeg nga bàyyi say cër euh, nekk ci biti ak sutura tamit comme ni ma ko waxee say baat aussi ci kaw ak yenn foo foo xamante ne boo fa demee tamit amoo yenn musuwaay suñu borom mun na def boo rab dugg la ci loolu mais yëpp daal kooku daal musu si suñu borom tabaaraka taala boo ci mustoo ak yenn aar yoo xam ne boo ko defee sa yaram kooku yàlla mun na la musal ci wàllu rab daal incha allah te rab tamit dina def boo nit tamit góor ngay fooy sa bopp te booy fooye sa bopp bu yàggee rek am na yoo xam ne dootoo dootoo ko yëgati to yëpp daal kooku fagaru rek moo gën a am solo incha allah rabbi euh, sëñ imaam sëñ lay jaajëf lu baax mais euh, jamono ji ñu toll tamit hémorroïde dafa bare nga wax ñu tuuti si wàllu hémorroïde parce que gis naa ne ne da tamit macha allah kooku ni ma koy fajee ci wàllu sunguf euh, laa koy fajee hémorroïde lu koy joxe tamit bëri na jamono gi lekk ci lekk yëpp ci lekk yi la lekk yi nga xamante ne am na lekk yoo xam ne keneen mun na ko lekk mu jikko mais am na koo xam ne bu ko lekkee rek toog am na yoo xam ne mun na la ko mun na la ko andil ngay seere mu andi lay seere wala émuri tamit mun na def léeg day def koo xamante ne bu la euh, kii dëgg-dëgg mun na dem boo say nga tëll ci fànn googu émuri na koy def incha allah te boo lekkee aussi sa lekk bi du mun a rees ngay seere émuri na koy def te ci lekk rek la émuri di sukkandiku daal incha allah yéen toogaay boo koy def tamit. ak yàpp guddi tamit kooku yëpp baaxul te kooku mun na andi hémorroïde incha allah mais yëpp daal kooku dinaa ci def saafara incha allah rabbi. sëñ Imaam doguma sëñ la sax euh, mais euh, hémorroïde dafa bëri façon. waaw dafa bëri façon hémorroïde euh, bëri na façon am na hémorroïde yoo xam ne ci biir la lay nekk am na yoo xam ne ci biti lay nekk am na yoo xam ne booy boo demee cabinet booy dem cabinet day metti lool lool ci yow. wala da dem boo da ngay génnee dara sa kooku yëpp hémorroïde na ko def mais euh, yi ma yor daal ci wàllu sunguf daal kooku incha allah rabbi ci kattanu yàlla boo ko euh, utiliser yaa na mën a la may tawfiix baax ba incha allah. sëñ am na jigéen yi nga xam ne ni euh, dañoo bëgg jëkkër fu mu nekk nii sëy dong lañu bëgg ndax dëkk bi toj na léegi fu mu nekk nii dañoo bëggoon rek ndax bu ñu ñëwee fii rek nga saafara leen ndax kattanu yàlla. incha allah rabbi ci kattanu suñu borom tabaraka taala am na ñoo xam ne kon mu la ko am na ñoo xam ne dañuy am ay ati at eh, duñ mën am jëkkër wala nga dugg ci yenn yi nga waxtaan ay nit ba pare mu bala dem yoonam loolu lépp rab dina koy def eh, wala tamit leneen dina koy def muy say wàllu sa yaram bu tëjoo dërë dëgg-dëgg dina koy def mun a waxanteeg nit eh, bu déggoo ci benn kaddu loolu sa moom sa lu koy yóbbu du ko xam yàqu-yàqu dugg ci Euh, léeg-léeg koo xam ne da ngay toog ay ati at doo gis ku la ku la ku waxal lu soxna mais loolu yëpp daal bëri na ñi nga xam ne dañ may soxla ci fànn googu ma leen defal ay ñaan incha allah kooku sangal laa koy def ci wàllu arxuraan ak téere laa koy liggéey incha allah boo suñu borom may la ndam ci fànn googu bëri na ñoo xamante ne tamit euh, fànn googu tamit euh, bu ci luñ dugg ci wàllu sëy du yàgg seen diggante yàqu buñ duggee ci sëy mu yàqu am même ci góor yi am na góor yoo xam ne dañuy dem boo am ay ati at kooku pour am soxna sa dafay jafe ci ñoom wala ñu dem boo waxante benn jigéen kooku nga gis yàqu-yàqu euh, dugg ci walla mu dem booy waxtaan ak jigéen loolu lépp euh, nga gis yàqu-yàqu dugg ci mais wala mu tàkk soxna ba pare du yàgg ak moom mu yàqu mais yëpp daal rab dina koy def tamit mais sa wàllu yaram bu aussi bu tëjoo rek dina koy def incha allah mais loolu yëpp daal am na ay mbir yoo xamante ne daal dinaa ko ci liggéey daal macha allah. waaw sama gars yi leen yéen a ko dégg no du ñu def Forte d'une expérience et d'une expertise de plus de 65 ans dans le domaine de l'immobilier, la CICAPESA a mis en œuvre d'importantes réalisations pour faire de Dakar une ville moderne. Afin de trouver une réponse concrète aux problèmes actuels de l'habitat au Sénégal, la CICAP, signataire d'un contrat de performance avec l'État du Sénégal, met à la disposition des populations une large gamme de produits immobiliers. Ces logements de type F3, F4, F5 et F6 d'une qualité architecturale moderne, alliant confort, sécurité et économie d'énergie, sont proposés à des prix défiant toute concurrence. Dans cette dynamique, la SICAP réalise trois nouvelles cités. SICAP grandbau est un complexe résidentiel situé à Grand Grandbau, comprenant des villas basses de type F3 sur 150 m carrés, des villas R1 F5 sur 150 m carrés et F6 sur 300 mètres carrés, ainsi que des appartements de type F4 dans des immeubles de standing. La cité est fermée avec une guérite à l'entrée, gardée par des vigiles et équipée de caméras de surveillance. Tout un dispositif géré par un syndic de copropriété pour assurer le confort, la tranquillité et la sécurité des résidents. Avec SICAP Lagrose, la SICAP rend l'accès au logement encore plus facile. Situé à quelques encablures du lac Rose, le programme immobilier SIGAP Lac Rose est composé de logements de type F3 et F4 répondant parfaitement aux besoins des clients. Avec 10 500 000 francs CFA, devenez propriétaire d'une villa de 3 pièces composée de deux chambres et salon sur 150 mètres carrés. Plus besoin de chercher ailleurs. Les brises du lac Rose vous offre l'opportunité de résider et d'investir dans un quartier calme, serein, gage d'une bonne qualité de vie. Le projet SICAP Rudis 10 se distingue par une offre diversifiée d'appartements de type F4 sur une superficie de 120 mètres Ils sont réalisés dans des immeubles R4 équipés d'ascenseurs, de panneaux et chauffe-eau solaires afin d'apporter une plus grande commodité à ce complexe des endroits propices à la promenade et à la détente ainsi que des espaces verts, un jardin public, une aire de jeu procurent aux habitants une grande convivialité. Acheter à la PESA, c'est s'offrir un logement de qualité. Acheter à la PESA, c'est sécuriser son investissement. Réception des véhicules des maires ce mardi 26 juillet 2016 au CICES. Le ministre Abdoulaye Djoussar décerne un satisfait à Cheikh Amar et valide la commande de l'État, réceptionnant les véhicules utilitaires commandés par l'État à la société TSE. Le ministre en charge des collectivités locales a constaté de visu la fonctionnalité des bagnoles avant de décerner un satisfait à l'opérateur économique Cheikh Amar pour avoir respecté le cahier de charges et fourni à l'état des véhicules de qualité. mbokk yi ñu leen fàttaliku lekk yéen a ngi seetaan ci www.alodakar.sn ñu ñëwoon fii nga xam ne ni mooy parcelle unité 18 ci kër Imam Cissé euh, mi nga xam ne nii mooy euh, faj lépp man jinne sax laa koy waxaa ah, ndax dafa mu nekk nii lim li ñimbal li nga xam ne moo koy faj loolu moom doy na waar doy na waar te fu mu nekk nii moom dëkk bi toj na waaw léegi nag duñu dem rek lu dul ànd ak moom rek ah, laajaat ko sañu Imam Cissé li nga xam ne nii mooy euh, jigéen bi nga xam ne nii dafa tëw am doom mën nga ci leeral tuuti ak ah, noo koy fajee waaw bismillah du may faj lépp nag doomi aadama mënul lépp yàlla dala may lii may keneen la mais lu mu la may suñu borom mun na def boo kooku ijaaba nekk ci ijaaba suñu borom basmala bi ngay gis ni bis basmala bismillahi rahmaani rahim kooku su borom bu la ko majee bu la may ijaaba ci biir bismillahi rahmaani rahim kooku mun naa ci def lu bari bëri waxuma la lépp mais nag mun naa ci def lu bëri bëri lépp ko waaw am na ñoo xam ne mun nañ lépp waaye man munuma lépp am na yoo xam ne mun naa ko mais lu may mun aussi yàlla moo ko yeggali lu nekk suñu borom tabaaraka taala mooy yeggali mbir mi euh, mais lu ma mun dinaa la wax ne lii dinaa ci dafay ñaan incha allah te suñu borom mooy yeggali mbir mi euh, bépp faj fajkat munul lépp si yàlla subhaanahu wa taala mun moo mun lépp te même euh, docteur bi nga xamante ne mooy docteur spécial ci wàllu nasaraan sax kooku munul faj lépp te am na matériel bu dul jeex bu doomi aadama bu munoon lépp kenn du dee ci kaw suuf mais da ngay faj eh, yàlla may la leen nga eh, dimbali ci doomi aadama li nga mën suñu borom eh, jàppale la ci incha allah rabbi bu ko defee tamit comme fan yu bëree bëri am na yoo xam ne ci wàllu alxuraan laa koy jëlee muy wàllu concours même ci concours ci wàllu examen kooku bëri na ay xale yoo xam ne même examen yi passé bëri nañu ay xale yi nga xam dañu may soxla ci fànn googu ma defal leen ci ay ñaan am na yoo xam ne am naa ci kii euh, décision mais bëri na ñi nga xam te am nañ ci ndam yu am solo solo incha allah rabbi te même gërëm nañ ma ci lu bëree bëri euh, bëri na ñi nga xam tamit ci wàllu musuwaay seen wallu yaram euh, kooku dinaa ci def ñaan yu am solo bu fekkente ne yaram bi liggéey moo ci nekk wala kort kooku dinaa koy dindi incha allah wala bu fekkente ne nga boole say njaboot sa kër ñu mun a juboo nekk benn. kooku dinaa ci def ay ñaan incha allah wala sa diggante ak sa borom kër yàlla def ci jafe-jafe kooku dinaa ci def ñaan boo suñu borom def ci jubale ba suñu borom uh, jàppale ma ci incha allah loolu lépp dama jàpp ne ci jaamu yàlla la uh, am na yoo xam ne dinaa ci dëddale kooku dëddale du ne lu nekk ma def ci dëddale déedéet uh, am na yoo xam ne say njaboot buy dugg ci yenn loo xam ne lu bon la kooku mën nga ci def dëddale boo ci def dëddale suñu borom <coughs> moo la ci may yool. Euh, bu fekkee ne day dem ci lu bon kooku mu nga ci def dëddale bu fekkee ne say njaboot mu ngi dugg ci benn góor goo xamante ne ku bon la naan kat sàngara kooku dinaa ci def dëddale yu am solo incha allah kooku bu soobee suñu borom daal euh, du yàgg dinaa ci def dëddale yoo xamante ne yu ama am solo la incha allah rabbi te tamit bëri na ñi nga xam ne bopp yu metti euh, dañ koy dañ koy kii ci seen yaram daal kooku dinaa ci def ay téere yoo xamante pour wàllu bopp yu metti la wala say <clears throat> biir taxaw wala yow jigéen say biir taxaw pour wàllu am doom kooku dinaa ci def ay ñaan daal incha allah ba suñu borom may ñu ndam daal ci fànn googu incha allah rabbi te tamit eh, am naa ci yaakaar yu am am solo daal incha allah ci barke rasulullah waaw mbokk yi li leen leen eh, indiloon ah donc eh, dañ leen wax rek numéro yi moo nekk nii sëñ Cissé 77 048 10 93 boo leen ko bëggee jot aussi mën ngeen def 76 751 91 07 Skype bi boo leen ko bëggee jot da ngeen def Serigne Cissé 2015. donc euh, du def rek euh, mu jàkkaarloog euh, cher internet yi amunu ah, yo wax dernier moom donc te mbok yi ñu ngi leen di bu baax ba na mbok yi ma leen nuyu di leen sant incha man la Serigne Cissé maa ngi fii Parcelles unité 12 18 tout le temps. ku boo ak man bo mu sama numéro rek dig nga ma jot incha wala fekk fekkee voyage ma léegi ma voyage nak mais fekk fekkee voyage ma ça bu ma woowee di ma jot fi incha allah rabbi muy parcel Assainies unité 18. muy sama numéro muy 77 048 10 93 wala ci 76 751 91 07 wala si samay Skype bi Serigne Cissé 2015 képp ku ma woo daal di ma jot incha allah bu fekkente ne say aajo mun naa ci dara incha allah ci kattan su borom dinaa la wax ne ah moo ko lissaar ba pare dinaa la mun a wax lii ak lii ak lii la bu fekkee ne mënu ma ci dara tamit dinaa la wax lii mënu ma ci dara mais lépp suñu borom tabaaraka taala ci laa koy wekk mënu ma lépp nag mais am na suñu borom am na lu ma baax incha allah. mbaɗi banninkon mbal be contonna albaɗi ma sise min parcelle asene unité 18 awal contonna min bota kamum to sate o sate kabo gambia kata casamas kata salum abe mbaɗi mum be contonna min ɓe mbaɗi ɓe mayamu dulawo dula mbe contonna mbe duwale ke wato wati alfanansa duwa ka fo ay wato wati inchallah nar solo ta sako sakumande ala sanni ala numéro to min mo 77 048 10 93 walla 76 751 91 07 walla ala ala sky bo to min mo sérin sisé 2015 naalen commande wati wati mbal mbal dankone inchallah na atarambe dakar mbal mba afolale mbe dakar nimbe casamance mba afolale mbe casamance nimbe gambia mba afol mbe gambia mbe dawda mba afolale inchallah rabbi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu